sun scorpion yi konen dem ci airport bi jël avion pour dem Côte d'Ivoire Africos ñu dem ba ci kaw plein bi ñaka oxygène manam ngelaw yow muy wax lu ta continué woon dama nga dugal sa bopa ci auto nga aj weer yi ba aju nga tej ko bu taaj ac nga tofu ba ci kanam su boba ngay soga xam lu boy don daj. Who spoke that spoke? Sénégal teggil sa loxo si suñu réew. Lide de ma ci loxo Senegal top ngeen ñu am ngeen ñu senegal lu leen def waccu wàccuñu leer na mané senegal mo ci plein bi am cable yu fa dox ba do yeb ñu téré dem ci kan bi monde do reen man lu badi gay Gambia is a prank demba ak barki demba la ko gom Gambia is a prank but wait est-ce que Gambia sa nekul comedy channel foofu pour yéen Sénégalais yi nekk si TikTok bi di wax Aba No Stress moom génne na si kaa bi moom mu ne Sénégambien la di wee ñoom las gis naa seen post yi nag ne leen def police moo day digg Ndakaar mais Assalamualaikum Gambia tay na dama pour wax GFF ak Gambian xaw ma federation ñoo xamanteni ne ñoo sun suñu national team bi seen mbir ak yoon non yeen naka ngeen di jëlé football ay. di leen dugal si lool kay du plein di leen dugal si boss bo xamanteni ne amut li la la ñuy egg bi ci kaw di manké ay ngelaw mais ni du ay domi arama ñi nga xamanteni ne wala dem represent Gambia depuis ci suba bo yaan ci si Twitter bi di guerre ñun ñu ci tiktok ñeneen ñu ci youtube ñu ngi fu nekk di guerre ci suuf di tàngal booy war a dem pour win match boo xam ne monde lañ ko am match bu gën a am important si match match bu gën a am important yéen nekku leen fi dara démb booy trainul nit yi dem fay seen xaalis duga toog pour booy ñëw train ndekete yéen yéen a ngi amel booy seen xaalis yoo xam ne fayu leen ko ñun ñoo nga naan booy naan su leen joxe diplomatique passeport jaruñu joxaat gaay xaalis something like that loolu loolu loolu dafa ruslu sax ama gene specs bi ngeen gëna xamne man luma wax ni daf ma ñor ñi ñu ne boy ñu ne su leen joxe diplomatic passport soxla won xaaliss yow boy ñu wara am diplomatic passport ak seen xaaliss nga naan suñ soxle li duñ am li ñi dañ ko wara am bay rek ñi professional football bay seen job ñi tay dara su leen dalon si plane bi foofu la lañu wax ñi day am ay family ku nekk dafa am family boy dundal loy yaakar ñi dañuy liggéey nekkum fi pour ay pasa pasa ngeen tok ben place di lek ay xaaliss ci jambour di lekk ah ci jambour ñaata Gambien ñoo dem demal si stade fay seen ticket sétan tré munu yo sétan dara dafa metti dé wallahi dafa metti so gisé ku ñu yab rek yéen la soo gisee kenen di ñu yow wala leneen yéen la du fan du Gambien ci ñun lu mënuñ ko def ku gëna wax dara si gamé dañu try pour defend son country ya ma understand way ñi suñu défar ñi di yàq ya. ticket bi kañ la mo dem ñu wara amé timbi ci bopam si hol bu naxaari leen fi joggé ko sax ñi su démé Sénégal do ren 20 notes sax danoo xam ne ne ñoom dañ ko deserve because seen préparation bi sa matut Gambia sa Gambia